yi fi daje di ansaar ah di suñu mbokk suñu mbokki jullit di suñu mbokki taalibe ñi ngi leen di wax marxaban waaye di am mbégte bu baax ci ñëw ngir teewe si forom international bii nga xam ne yéen koo taxawal yaakaar na bu mooy première ngeen taxawal ñu am mbégte bu baax ñëw ngir ànd ko yéen ngir ubbi leen ko waaye ngir ànd ko yéen ah di am baax nag ci yéen ak seenu liggéey ndax yàlla leen tawfeexal gindi leen ngeen xam ne dëgg genn la dëgg genn la yàlla suñu boroom kenn la yónni woon ay yónni yu bari yoo xam ne moom moo leen lañ waxoon lépp dëgg la waaye nag saa yu jamono demee ba soppi ko mu yónni beneen yonent mu yeesalaat diine la yàlla waxoon moom dëgg moom dëgg la mën a doon kon lépp loo xam da xibaar wax ko dëgg lay doon la tàmbalee ca ka njëkk mën nañu wax aadama ca aadama ba léegi waaye nag li muy digle moom yàlla suñu borom lu ko neex lay digle moo tax lan digaloon mu dëkk ña mën naa wóoteeg li ndigal mu mujj kon ci la yonent bare ñëw ba suy maam Ibrahima ñëw ak ña ca topp ñëpp ba Sayyidina Isa ruuxulaa ñëw andi dëgg yeesal diine ba diine ràpp mu yebal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw di tëj nubuwa gi di tëj yonent bi yàlla taw leen ngeen nekkoon koo xam ne ñi ci ëpp gëmuñu woon lislaam gëmuñu woon yonent bi waaye yàlla taw leen ngeen gëm ko benn gëmee itam ñi baax ci lislaam bari nañ lool ñi baax ci lislaam bari nañ lool gox bu ne am na ñu fa nekk di fa woote lislaam bu ñu baax waaye xaadimu rasuul mi ngi xam ne bi mu ñëwee jamono te yàlla yàlla tànn ko def ci moom bëggu lu yàlla boromam bëggu lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi xam ne moom la yàlla tànn wàcce ci moom alxuraan digal ko li mu bëgg lépp nga xam ne képp kuy jaamooti yàlla bi mu amee bi ko yónnee ak léegi ci diineem nga ko war a jaamu mu wér inna diina indallaahi al-islaam bi kon yàlla itam comme ni ma ko waxee woon ñu bari jaar nañ ñu baax a baax a baax waaye nag Sëriñ Tuubaa itam di tànneef ci diine lislaam liggéey jaamu yàlla suñu borom ba suñu borom gërëm ko te jaar ko sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ko ci jëmmam di ko tàgg di ko défendre di julli ci moom waaye liggéeyal ko ci sunnaam si muy diineem ji di leeral diine di taalif ay téere tëddu si xaar jawar na fis yu baree bari ngir jàngale diine waaye liggéeyal ko ci xeetam bi defar ay nit yar leen def ñoom ay jikko yu baax def ñoom ay teggin bañ doon nit ñu baax ñu ragal yàlla ñuy liggéeyal yàlla yàlla liggéeyal suñ tubaab liggéeyal mbindeef yi ba am ngërëmul yàlla wala liggéeyal na ko ci mbindeefam yi kon bu leen yàlla too fee xalee ngeen bokk ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bokk nag mu tànnal leen mënoon ngeen a féete fu ci diine ji waaye mu tànnal leen xaadimu rasul mi nga xam ne Sëñ Tuubaa moo ko waxal boppam xamuñ ku ko gën a jege yàlla boromam xamuñ ko gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu doon liggéeyal kon am ngeen tawfeex bu baax a baax ànd kook ñun kon maa ngi am mbégte baax ci ñëw ubbi leen forom seen forom bi ngeen njëkk a def forom international bi ngeen njëkk a def di ci sant yàlla bu baax yàlla gi ma yàlla boole ma ko yéen kon nag jërë leen jëf jazakumullah xeer gi yàlla na yàlla defal tawfeex waaw waaw yàlla sàmm ñu waaw bañ jaamu yàlla ni ko yàlla suñu borom bëgg waaye liggéeyal suñ Touba ba am ngërëmam kon nag. Touba donc moi je suis Abdallah Ansar en français, pour que nos, nos amis francophones qui s'intéressent aux mouridistes comprennent un peu notre euh, démarche au, euh, au niveau de, comment, de, du mouridisme. Donc euh, on va vous expliquer l'historique du Daïra Ansar. Euh, suite aux différentes visites de cher Mortada Mbake, que Dieu le bénisse, et grâce à la dimension et l'importance qu'il qu que ces visites faisaient, euh, qu'ils faisaient à travers le monde, et particulièrement en Italie, euh, les gens ont commencé à s'intéresser en l'islam. Donc euh, en fait, le Dairan Sar, n'est-ce pas, est né, est né en Italie. Hein euh, donc les gens ont commencé à s'intéresser à l'islam et à essayer de comprendre euh, aussi qu'est-ce qu qu'était que le mouridisme, la, la particularité du mouridisme. cependant, euh, leur euh, curiosité les laissait parfois perplexes, car euh, malgré leur intention d'approcher et d'intégrer la religion musulmane, ils étaient souvent heurtés à la confusion et voire même à la, désori la désorientation. En fait, c'est peut-être à cause de problèmes linguistiques, problèmes culturels. On sait aussi que les talibés modou modou qui sont en Italie, parfois, ils vont, bon, ils vont pour euh, travailler, pour gagner leur vie, et non pas beaucoup de temps pour pouvoir aussi expliquer leur culture et surtout leur religion et en particularité euh, le mouridisme. des fois c'est un peu difficile, il y a quelques petites barrières et justement le Dara essaye pour les gens qui sont intéressés, pour se convertir ou qui seraient déjà convertis, pour pouvoir les diapaler, comme on dit, j'en perds mon, mon français, euh, pour pouvoir essayer de les aider et les, comment, et les conforter dans la, dans la religion musulmane. Donc, euh, bah, nous, on essaye d'amener un peu notre, euh, notre euh, comment, euh, comment je pourrais dire, notre, euh, notre, notre aide, quoi. Et du coup, Certains, donc, euh, personnes qui arrivent à se convertir et d'autres euh, d'autres ont les mêmes ambitions, mais souvent, ils sont laissés un peu à eux-mêmes et sans accompagnement et ni suivi. Euh, pour ma... comment... En ce qui me concerne, ce que j'ai vu moi, c'est que les personnes qui sont les plus aidées, en fait, qui se reconvertissent, c'est surtout le, les personnes qui ont soit un mari sénégalais ou une femme sénégalaise. Ils ont beaucoup plus de chances d'être aidés parce qu'ils vont, ils vont vivre au quotidien, ils auront quelqu'un pour être derrière eux, pour pouvoir euh, les aider. Mais il y a aussi des personnes qui veulent se convertir et qui n'ont pas forcément un mari ou une femme sénégalaise et qui vont du coup vont être heurtés à la barrière linguistique, la barrière culturelle euh, et vont pas comprendre Le, le mouridisme est né entre guillemets au Sénégal, euh, est très ancré au Sénégal et commence à se développer partout dans le monde. Donc euh, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement avec le Daira d'avoir une base pour pouvoir aider les nouveaux convertis, qu'ils soient mariés ou non mariés, pour pouvoir les, conforter dans leur foi, pour pouvoir les aider à progresser et surtout à pas décourager. Parce que c'est ça qu'on qu constate souvent, c'est qu'il y a euh, des personnes qui, se, qui, qui ont été mariées, machallah, avec des, des, personnes sénégalaises. Comme dans toutes les cultures, il peut y avoir des divorces. Et il, il suffit qu'il y ait un divorce pour qu'ils se désolidarisent de l'islam, parce que c'était plus quelque chose euh, qui était voilà, euh, culturel. Et du coup, nous, on ne veut pas laisser tomber ces, ces personnes-là. On veut essayer de... En fait, quand on se marie avec une personne, l'homme ou Adama, il peut avoir des hauts, des bas, mais quand on se marie avec Dieu, c'est jusqu'à la fin. Et on ne peut pas qu'il y ait de marche arrière. Justement, c'est ça notre, notre, démarche. À quoi on sert dans un premier temps On veut euh, nimbler sur nos bocs euh, <laughs> Pardon. Donc, en fait, En s'inspirant de toutes ces situations, nous avons un, comment, notre Jolene qui est en Italie, Serigne euh, Maigay et Serigne Eladji Gay, euh, qui dit Bogofalou qui est derrière. On, comment, pardon, ont, on voulu proposer des solutions pour remédier à cette, euh, cette, préoccupation. Après de longues réflexions, ils, sont arrivés à créer, à, ils ont réussi à créer le Daira Ansar. Et comme nous l'avons énoncé, ils sont parvenus à structurer le Daïra Ansar et ils sont prêts à œuvrer pour répondre aux attentes des nouveaux convertis. Pour y différents canons ont été utilisés, à savoir des rencontres, des accueils, des orientations et des suivis. Le nom de Ansar leur a été donné le mai par Serine Mammor Mbake, ayant comme référence les Ansars de Médine qui avaient accueilli le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa ainsi que ses compagnons. Ce fut le premier daïra portant le nom Ansar. On peut que, pardon, on peut, on peut remarquer que ces membres ne sont pas seulement euh, sénégalais, mais de différentes nationalités. Par exemple, ici, nous avons des Italiens, Français, Français, Français aussi. Il y a beaucoup plus d'Italiens. On peut citer Abdulrahman euh, Vittorio, euh, Sornassi, Monaco Mandiara. Mam Diarra Gueye maa ngi ziar bu baax Serigne Fallou Alba euh, et chaque jour que Dieu fait on rencontre des nouveaux convertis qui viennent de partout du monde que ce soit de l'océan Indien des, de l'Amérique euh, n'importe où d'Europe d'Europe du Nord Europe du Sud on rencontre de plus en plus de personnes qui se convertissent et nous en ce qui nous concerne dans la voie mouride donc pour euh, continuer euh, À la différence des daïras traditionnels aussi, nous n'avons pas un wasila en commun. Nous arrivons chacun d'un daïra différent. Nous avons tous des wasilas différents. Bon, c'est un peu ça aussi qui fait notre force parce qu'on va avoir différentes, euh, comment, différentes formations et euh, tous pour progresser dans le même sens, pour œuvrer pour le travail de Cheroul Khadim. Donc euh, en gros on a fait à peu près le tour. Ce que je pouvais rajouter c'est que progressivement mais toujours en ligne avec la doctrine mouride, des rencontres et des conférences ont été organisées afin de créer un esprit de, de famille, de Bokitalibé. Et cela s'ajoute à des cérémonies religieuses. Donc on essaie de participer aussi aux, aux, aux grandes cérémonies comme le Magal qui va arriver bientôt, Inch'Allah. Euh, Nous, nous sommes là, c'est pour faire pour le mouridisme. Euh, on est des Toubab, certains diront mais en tout cas, on, on, sort, on sort un peu du lot, machallah. C'est pas pour euh, pour faire une publicité pour le travail de Serine Touba. Euh, J'ai vu des Makutalibé venir sur moi le jour du Magal et pleurer toutes les larmes de leur corps parce que tellement ils étaient contents de Serine Touba en me voyant. Et pourtant j'étais euh, un tout petit Ndongo. J'avais pas de ram-ram, j'avais rien du tout. Mais les Makutalibé, nous comprendre la dimension de Serine Touba. Regardez le travail de Serine Touba aujourd'hui, tous ceux, tous ceux qui débarquent ici. Et il y en a, Inch'Allah, il y en aura beaucoup d'autres. Donc nous, on sert de publicité. On sert de, de bouée de secours aussi pour les convertis qui voudraient euh, faire marche arrière. Et franchement, ça, c'est notre, perte, c'est notre perte. Nous, on a eu la chance. Et Inch'Allah, on espère rester dans le mouridisme jusqu'au dernier souffle, par Kemam Sharafal. On, es, on, espère. Et on ne on veut pas que quelqu'un décourage, quoi, parce qu'il aura eu des mauvaises, euh, des mauvaises fréquentations, des mauvaises expériences. À savoir aussi que nous, en tant que reconvertis, nous, avons, euh, nous devons comprendre qu'il y a des natous. Dieu ne va pas nous convertir et nous donner euh, le paradis clé en main. Non, non, il va nous tester. Nous, on a compris ça, parce qu'on a déjà vécu, on a de l'expérience. Falou, il est là depuis des années, ça fait des décennies qu'il est, qu'il est, qu'il est mouride. On sait qu'on doit avoir des natous. Les natous, pour euh, les francophones qui ne comprennent pas, c'est des épreuves divines. Et c'est comme ça que Dieu va nous tester pour voir notre foi. Est-ce qu'on va décourager ou est-ce qu'on va continuer Et comme on dit en Wolof, gorgourlou, petite dîner pour un, pour un créole, quoi, diop diol. C'est ça. Donc, voilà un peu les. Comment je pourrais dire À quoi sert le Daira Ansar On est là pour aider les nouveaux convertis, les prochains convertis. Et dans cette logique-là, Nous, comment, donc, nous participons au Magal, aux grands événements mourides. Chacun dans son daïra aussi participe. Ici, il y a Falou, il est très actif sur la zone de, de Bay, Bay hein, à côté de, du Lac Rose, là-bas. Euh, tous les jours. Tous les jours, on essaye de montrer qu'on est là, euh, Alhamdoulilah, pour Sirin Touba. Sinon, on pourrait rester euh, dans les hôtels, les piscines et consorts. Mais ce n'est pas notre mission ici au Sénégal. Dieu a fait qu'on se convertisse Donc on vient amener notre, euh, voilà, notre pierre à l'édifice, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Donc à travers les, les différents magal pré précédents, nous avons eu la chance de rencontrer les khalifs. Nous avons, nous avons eu la chance l'année passée de rencontrer euh, Serine Muntara Mbake, que Dieu lui donne longue vie et la santé, Mbake Manfarafal. Nous avons eu la chance de rencontrer différents cliffes, les fils de Serine Touba ou des fils ou des petits-fils de, de, de Cher Ibrahim Afal. Donc euh, nous, on les remercie beaucoup. Euh, on, se, on, sert aussi de ça pour montrer un peu notre force, mais pour pouvoir, comme je disais tout de suite, faire la publicité de Serine Touba. Que Serine Touba est venu peut-être au Sénégal dans un premier temps, mais qu'il est ici sur Terre pour les fils d'Adam, dans mon Adama. Et voilà. Donc euh, on en fait partie. On va essayer de, de, de profiter au maximum, nous aussi, pour avoir notre part, mais aussi l'islam, c'est une communauté, donc on doit aider les autres. et pouvoir les, aider à être confiants, quoi, à avoir la foi et ne pas perdre la foi. Parce que Diamono Dafal London, et euh, c'est très difficile de garder la foi. Il y a Tentation, il a beaucoup de tentations, il a beaucoup de pièges. Shaitan est là tous les coins de rue et n'importe où dans le monde. Il est là partout. Nous, on a la chance d'être, euh, de résider euh, un peu, longtemps au Sénégal. Donc, on s'est imprégné du mouridisme sénégalais. C'est les Sénégalais nos Jolines. Par force, on ne peut rien y faire. On ne peut pas commander n'importe quel Sén le, les, les, Sénégalais, ça sera toujours nos Jolines. Parce que c'est eux qui nous ont appris, c'est eux qui nous ont montré la voie, c'est eux qui nous ont éduqués. Même si ce n'est pas par les Kham c'est par le savoir-vivre mouride. Parce que le savoir-vivre mouride, c'est la base. Bon. Maintenant, nous aussi maintenant, à nous d'être des, des, des, nouveaux Jolin, des, des, essayer d'aider ceux qui se convertiront par la suite et ceux qui auront besoin de conseils. Pour, ce, pour, ce, pour cela, nous, euh, comment, le Daira Ansar justement veut, comment, veut et a déjà commencé à traduire les Tere Khamkham de Serine Touba. Il y a Abdul Arman et Serine Falou qui sont en Italie, qui œuvrent pour ça. aidé par beaucoup d'autres beaucoup talibés. Euh, il, y aura les, il y a les conférences aussi qui commencent à être traduites dans, toutes les, dans, dans, dans plusieurs langues. Donc qui peuvent, euh, comment, comme les, les, les conférences qu'il y a pendant le Magal, avec tous les invités qui viennent de, de, de partout du monde, quoi, machallah. Donc nous aussi, on est là pour participer. Euh, pour finir, Le Daira Ansar a un projet ici au Sénégal, avoir un centre culturel, un centre islamique avec euh, une base pour, ce, pour les, les, les étrangers qui voudraient venir apprendre au Sénégal. euh, des familles, euh, des pères de famille, des mères de famille ou même des enfants. Il pourra avoir des, euh, on espère avoir aussi des daras pour pouvoir les former dans plusieurs langues et pouvoir les former dans toutes les langues. Mais bien sûr avec la, langue arabe principalement, mais pour pouvoir communiquer entre nous. Donc euh, c'est le projet que nous avons euh, mis en commun pouvoir avoir un centre culturel, de, un centre de formation où il y aura pourquoi pas un, un, comment, un programme de bourse pour pouvoir aider les personnes qui viennent euh, d'Italie ou d'ailleurs qui voudraient apprendre ce que c'est la voie du talibé Mourid. Euh, pour, ce, pour, cela, comment nous, nous avons mis une petite contribution qui, est, qui sera de 2 euros, l'équivalent de 1000 francs, euh, par, pour les talibés, pour pouvoir avoir aussi notre propre financement et pouvoir commencer les travaux et pouvoir dimballer, aider ceux qui veulent venir, pourquoi pas leur payer le billet, leur payer à manger, leur payer du tchep, <laughs> et etc. etc., euh, c'est ça la communauté musulmane, on doit tous s'entraider. Euh, Alhamdoulilah, je remercie le peuple sénégalais, en particulier les Mourides, ce que vous avez fait pour nous. On doit le faire aussi nous pour les autres. Donc c'est moi personnellement, c'est pour ça que je m'engage dans cette voie-là, essayer d'aider les autres. Euh, on a la chance d'être mouride, qu'on arrive à aider les autres et ceux qui ne savent même pas. Chaque jour, chaque jour que Dieu fait, on entend quelqu'un de notre entourage ou quelqu'un qu'on connaissait qui se convertit. Donc il n'y a pas d'hasard. Euh, que Dieu nous pardonne et qu'on continue sur la voie. Barke Seigne Touba. Akasa. Rahmatullahi Tarla wa barakatuh. merci euh, Hassan et euh, avec beaucoup d'énergie. Donc euh, bon, pour ma part, euh, Dainsa, je l'ai connu peut-être il y a 5 ans. Euh, donc c'est vraiment euh, une, bonne, une bonne chose, vraiment pour euh, ceux qui viennent de l'extérieur. Parce que quand on vient au Sénégal, qu'on ne connaît pas, en fait chacun peut avoir sa... comment dire Chacun va parler du d'humorisme à sa façon. Alors que le mouridisme, il n'y a que Sein Touba qui le définit. Et donc la définition du mouridisme, c'est Shalou Khadim cassé. C'est pas selon son interprétation ou selon. Non. Il y a un, gouverneur ou quelqu'un de l'État qui était venu, il a posé 15 questions à peu près à Sein Touba. une question, c'est quoi le mouridisme Et Sein Touba a dit le mouridisme, c'est iman par le tawhid, islam par le fiqh et ihsan par le tasawuf. Et ça, c'est clair. C'est la voix revivifiée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça, c'est très important. Et mourid, c'est Moudullah. On n'est pas dans la Khadimiyya ou dans la Bombaïya. On est dans la Mouridiya. Et ça, c'est quelque chose qui est différent par exemple aux autres turuq qui sont Tijan, de Charmet Tijan, euh, Qadr, Jabou Qadjilani. Ce qui n'est pas mauvais, hein, c'est pas une critique. Hein. Euh, mais voilà, c'est une touba a voulu revivifier. et nous sommes euh, dans un islam traditionnel. Donc on est asharit dans la aqidah, on est maliki dans le fiqh. Donc c'est quelque chose, voilà. Maintenant, il y a eu l'islam, il est déformé avec euh, les wahhabites, les Irwan muslimines, euh, beaucoup de tendances. Voilà, et c'est Touba, c'est un mujadid. Un hadith professeur Zam qui dit que chaque année, euh, chaque 100 ans, chaque siècle, un mujadid vient et revivifie l'islam, qui était altéré parce qu'on appelle des bid'ah. des innovations. Et dans les pilules Tafsagouf, il y a le rejet des bid'as. Par exemple, le Magal, qui arrive bientôt, Inch'Allah, les, les premiers talibés, euh, certains, pas les, euh, plutôt les, les, les, talibés un peu extérieurs, appelaient ça Tabaskinyar. Et c'est une toubadi des dettes. Tabaskinyar, c'est une tabaski. Appelez ça Magal. C'est un moment de de grâce. donc, et a fait son appel en 1947 euh, venir le faire à Touba, il a dit, voilà, c'est une action de grâce, mais il faut que ça conforme à l'islam. Lecture du Coran, Qasida, et s'éloigner des, des, des, choses qui n'ont rien à voir. Et les berder, donner à manger aux gens, c'est le gros du magal. Donc toujours dans les respects de l'islam et pas du folklore. Et ça, c'est un problème en fait, euh, quand un Touba bien, il a affaire en folklore en premier. C'est normal parce que quand on arrive, on arrive de très Pour ça, pour entrer dans le mourénisme, il faut faire un djiboulou. Quand on va en Sérine, c'est tabiyatul nafs. C'est pour ça qu'on vient. Ça, c'est très très important. Parce qu'on vient euh, pour que le cher nous nettoie. On a vu des choses, on a entendu des choses, on a fait des choses. Et tout ça, voilà, on vient pour ça. C'est pour ça que Sentouba aussi n'a pas pris les armes c'est parce que en fait, les, les gens n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas dans l'islam. Il faut d'abord faire un tarbiya. Le prophète sallam, c'est ce qu'il a fait en premier pendant 13 ans, c'était que du tawhid. Il fallait tarbiya les sahaba. Et la bataille de Badr, ça arrivait plus de 13 ans après la révélation du prophète sallam, et ils ont gagné en étant minoritaires. C'est pour ça que les meilleurs des sahaba, c'est les sahaba de Badr. Et Saint Touba a dit Je suis l'héritier du prophète sallam, soyez l'héritier des sahaba. Et pour ça, il faut s'accrocher au nigel de son sirine, un cher Kamal, un cher parfait réalisé pour qu'on soit comme un mort entre les mains de son laveur. Mais ça, on ne confie pas ça à n'importe qui. Et au début, c'est pour ça, il y a de tout. Il y a si, il y a beaucoup de Serine, beaucoup de Jaolin, on ne sait pas trop. Euh, mais Sintouba a dit ça, oui, mais il a dit ça, non. Mais, donc voilà, en fait, voilà. Et il y a des choses par rapport aussi à la culture où on, nous, on n'a pas besoin de rentrer. Parce que ça ne nous concerne pas. Nous, on est là pour Sintouba. Donc il ne faut pas mélanger. Et ça, au début, c'est pour ça que Sintouba a dit D'abord, le mouride, le premier droit du mouride, c'est dans Tazul Shuban, dans la partie Ihsan. Il y a ce qu'on appelle le Muqaddimat, une introduction d'à peu près une quinzaine de baits de mémoire. Et c'est est claire. Il, dit le mouride, il doit avoir son viatique du tawhid. Donc connaître déjà sa foi, parce que nous on arrive, on sait rien. Donc avoir sa aqidah, les six piliers de l'iman, bien les connaître. Ensuite, faire l'aïn dans le fiqh, savoir euh, faire le boudou, le roussel, savoir faire la salade correctement, ramadan, comment jeûner, etc., le hajj, zakat. Et il dit, à partir, après, à partir de là, vous pouvez euh, vous orienter vers un cher, un cher kamal, un cher qui suit les traces du prophète sallam, qui va pouvoir vous faire tarbiya. Parce que le djiboulou, il n'est pas là pour la sharia, il est là pour la haqiqa. Donc le cher, il n'est pas là pour t'apprendre à prier ou à réciter le Coran. Donc en fait, celui qui vient faire le djiboulou, il est il doit être déjà prêt à ce niveau-là. Et les premiers talibés du Cher, c'était tous des savants. Quand c'est une touba a dit, maintenant, celui qui cherche un oustaz, euh, qu'il aille ailleurs. Il y a des daras au Sénégal, il apprendra, euh, il peut pas moi, j'emmène les gens à Allah. Et ceux qui sont restés, c'est tous des savants. C'est pour ça que c'est une baquet Bousso a dit que c'est la meilleure des générations, c'est la première génération, ceux qui ont fait le premier, euh, la première Ba'a, le premier Djeboulou, à Touba. Et eux, tous, c'est comme ça. Donc c'est pour celui qui vient qui fait un djiboulou comme ça, le Syrie ne met pas en relation, il connaît rien, il se convertit à l'islam, il fait djiboulou. Il y a plein, j'en ai connu, ils repartent, ils savent rien. Ils savent rien, et ça, c'est pas normal. C'est une touba ne veut pas des ignorants qui travaillent pour lui. Ça, c'est important. C'est vraiment le ramram qui est prioritaire. D'ailleurs, les darats, c'est euh, Ceux qui faisaient le courel, ils n'avaient pas de

comme Saint Touba le dit, et petit à petit, voilà. Et ça, c'était Abdallah Farmi qui m'avait raconté ça. Il avait demandé euh, à, à Saint Saliou euh, qui est le sceau des saints. Saint Saliou a répondu c'est Ibn Arabi. Et là, Abdallah Farmi, il fait mais donc du coup, euh, Saint Touba. Il dit Saint Touba, c'est un cas à part. Il lui a dit plus ta connaissance va monter, plus ta connaissance de Saint Touba va monter aussi. Et là où ta connaissance va s'arrêter, ta connaissance de Saint Touba va s'arrêter. Donc ça, c'est très important et pour les convertis, ça c'est une priorité. Avant d'apprendre le Wolof, avant de ça, ça c'est une priorité. Connaître ça parce qu'après, on est apte à être indépendant spirituellement. Et euh, pas tout le temps à, à, demander comment on fait ci, comment on fait ça. Je parle des bases, après des questions, on en a toujours. Ça c'est sûr, mais sur le, ce que c'est une bonne demande, c'est-à-dire sur le tawhid et le faire au niveau des far'ain, non, on passe pas, on, quand on rentre dans une mosquée, on ne regarde pas les gens, on sait ce qu'on va faire. quand on sort, etc., quand on fait un légère, on ne demande pas à chaque fois. Ça, c'est très important et j'ai vu que ça, beaucoup de convertis, ils ne l'ont pas forcément. Quoi. Ça manque. Donc, c'est ça euh, ce que je vois en priorité. Et Daïra Ansar, c'est justement euh, ce qu'ils proposent. ce qu'on m'a raconté en Italie, c'est ce qu'ils font. C'est vraiment ça. Du coup, quand ils viennent au Sénégal, ils sont déjà prêts, ils sont bien encadrés. parce que c'est vrai que c'est, euh, ça peut être difficile qu'on part tout seul, on peut rentrer n'importe qui. Et euh, voilà, donc c'est surtout ça que je voulais euh, mettre en, en, lumière, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc euh, voilà, euh, je pense que tout est dit avec mes deux amis, là, mes deux frères, mes frères de combat. Donc euh, le projet du Dharamsar se résume ainsi. Quoi. Donc recevoir les, les nouveaux convertis, les, les convertis et, qui sont mariés <coughs> soit des Sénégalaises ou des Sénégalais, des, des mixtes. Donc on, les accueillera sur Touba ou euh, même, chez moi, il n'y a pas de problème. Donc euh, voilà, tout est dit, tout a en, tout a été résumé. Et je tenais aussi à dire que voilà, j'ai connu le, <clears throat> le Dara par le biais de, de Serine Sialiou, Serine Sialiou euh, Donc voilà, euh, bah, pas grand chose à dire parce que je suis un peu, nouveau dans, le Dara Et puis voilà, ben, je tenais à remercier tout le monde, tous les, tous les invités, et tous les Bouguit Talibé, et, et mon bagal de Touba et Deradief. Deradief. Alhamdulillah, bismillah, inna waliyallah, ma tawfiq kon ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam santaat Serigne Touba Mbacke bi sunu yaakaari tey ëllëg di yeesalaat bu baax sunu njébbal ci Cheikh Massamba mi sunu bunt ci sëriñ bi di am mbégte bu baax ci teewaay bi nga xam ni teewaayu jaamu yàlla la teewaayub dundal sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu bu baax su mbokk yi fi teew yëpp di siyaare sëñ Cheikh mi nga xam ne moo fi jóge léegi mu sëñ Mountakha di nuyu sëriñ Samba Sa siyaare bu baax sama mbokki Mbàkke Mbàkke yi ma àndal Ayda Mbàkke Mam Jaara Mbàkke siyaare bu baax sëriñ Xéewal Jang mi doon jël kàddu léegi di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo Serigne Saliou mu tegal ma ko ci loxo sëñ bëgg fàllu ñëpp di siyaare nag jëw jëwriñ ci soxna maam Jaara mbay bi nga xam ne su ma bokkee ci daayira bi wala ma am leen rek ñoom jëmbam jëm moo tax ndax bi ma nee cëpp Sadra ñaam fekk ko fa bis boobu moom moom nuyoo leeg tubaab bi yëpp ñu war a bokk ci fédération ahlu café bi moom bis boobu la bokk ci fédération bi ànd ñu ànd ak man liggéeyu maam Jaara bi lépp lu ñuy def ñun ñoo koy àndandoo ba tax ma xamanteeg tubaab bi yëpp nuyu sëñ Fallou sëñ Ibrahima ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn leen siyaare bu baax ak soxna maam Jaara Gaynde tamit ñu ngi koy nuyu bu baax li xam ne liggéey bi nag man tey dama cee xaw am sax lu ma naqari ndax suñ ko xamee woon nii dañu indi salle bi ba mu fees dell ndax ñii dañoo doon ñoo xam njabootu sëñ Tuubaa lañ boo xam ñëpp dañ leen a war jàppale ndax eh, ñoom boo leen gisee bëgg gëñ bëgg sëñ Tuubaa ak niñ duggee ci diine l'islam doon ay murit bëgg sëñ Tuubaa mu jaral leen lu nekk boo leen fekk Italie nga xam ne ñoom ay murid saadix leen man damay dem seen cant yi dem naa Pontedera fekk leen fa dem naa Brescia seen cant gi dem damay dem seen ndaje yu bare bare waaye man dañ maa yéem sax ndax baax giñ baax ak bëgg giñ bëgg sañ Touba ak fonk gi leen sëñ Maamoorum sëñ Murtala fonk te lii bu ko waa tubaa gépp yëgoon ñu médiatiser ko kon fii kenn du fi xaj ndax dañ leen a war a yaatal war leen a gën a xemmeem la yoon wi te loolu moo jaadu waaye nag lii ab tàmbali la rek waaye nañ ko fas yéene fekkewaat ko def ak jàmm bu soobee yàlla ñëpp dinañ fi teew jàppale leen sëñ Saliou ñu ngi lay sant bu baax yow moom murid saade nga yow lañ njëkk xam yow yaa fi njëkk a jébbalu ci tubaab bi nekk murid a tuub sa parfum wax léegi tudd Touba Mbacke daanaka moodu moodu bu daan ñibbi sama ngay jënd sërite waaye ñun sëñ Saliou koy jaay moom mi may na ma njëkk deuxième njëkk sëñ Saliou soxnaam si takk man maay <laughs> kon sëñ Saliou moom xam nga moom murid saade la te soxnaam si mu njëkk am sëñ Saliou Mbacke ko may kim am soxna mayum sëñ Tuubaa lañ ko tudde kii xam nga ne kon murid saadix la moom moo moom moo gën a xemmem la tubaab bi sax yoon wi ku ci dugg rek sëñ Saliou moo tax nga dugg ci kon sëñ Saliou ñu ngi lay santoo bu baax di la ñaanal waaw ah, fi ngeen bëgg daayira bi egg fi nag yàlla na fa egg ak sëñ Tuubaa dina fa egg nag dina fa egg soxna maam Jaara Bay gis neen jàppale gi mu leen jàppale moom it yéen rek ci yéen lay xëy ci lay ci yéen lay waxtaane ci lay xëy ndax bëgg leen bëgg yaatal gum leen di yaatal bëgg ñëpp xam leen bëgg ñëpp bokk ci daayira bi kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen këram di leen ñaanal seen daayira bi fu ngeen bëgg mu egg fa rek yàlla na fa egg ci barke Sëriñ Tuubaa yàlla na ngeen ci taseeg ndimbalu yàlla ak tawfeex Sëriñ Tuubaa waaw man nag sant naa leen bu baax gërëm naa leen takkaat naa sama laxasaan ngir jàppale leen nag bu baax a baax incha allah yal nañ ko teewaat na ngeen déwén rek asalaamaaleykum wa rahmatulah bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sëriñ saalihu mu jottaliku suñu mbokki taalibe suñu mbokki jullit yi teew ci jotaay bi di nuyu bu baax sëriñ yàlla sëriñ xéewal ak mbokki taalibe bi fi teew di am mbégte ci yëkkati suñuy kàddu ci turu sëriñ Ahmad Badawi mu sëriñ Fàllu moom mi nga xam ne moom la sëriñ Muntaqa jiital ci barab bi ñu nekk muy complex Cheikh Ahmadul Xadim muy barabu xam-xam barabu yar barabu jàngale bi nga xam ne Cheikh Mouhamed Muntaqa bi mu toogoo ci xalifa gi ci xilaafa gi mooy projet bi mu njëkk a yëkkati kon bu dee barab la boo xam ne dañ fi jàngale alquran di fi jàngale xam-xam mu am université ci biir barab université boobu ñu di ko ñu di ci jàngale diine waaye di ci jàngale yeneen formation professionnelle kon bu jotaay bu am solo bii nga xam ne ansaar taxawal na ko ci biir cadre màggal gi ñu ñëw defe ko fi loolu ñu ngi ci am mbégte lool di jégglu bu baax ndax jotaay bu amee solo nii waroon na waa daayira Rawdu Rayaahiin bépp ñëw teew waaye nag dañuy sant yàlla biñ ko amalee ndax sëriñ bay Géey mbay jotante nañ ci mu xamal ma jàmpaay bi waaye nag dañ koo bëgg a tàmbali ma ne ko loolu lu am solo la ndax lu nekk ci ta ci benn lay tàmbalee te ñi ngi am yaakaar ne jotaay bi mel nii dafa war a wëy di am jàpp nañ ne mën naa bokk ci événement yi gën a mag ci màggal gi ci kanam kon buñ ko am buñ lu mu jàmp jàmp amal gi ñun dañ ci sant doonte suñu sañoon teeloon koo yëg ba ànd kook yéen ànd ak yéen waajtaay wi étudiants yëpp dañ leen ko yëgal ca kon it événement yi nga xam ne am na tey date bi kon dañ koy kale yeneen événement ñu yóbbu ko ci yeneen bis waxtu yu may wax ak yéen muxaddamatul xidma mi ngi amal conférence bu mag boo xam ne mbokk yëpp daanaka ca lañ nekk man mii falaa nekkoon bi biñ ma wooyee ne ma tàmbali na ci laa bàyyi mbokk yee nekk foofa man ma ñëw fii kon bu fekkoon ne waajtaay wi ñun teeloon nañ ko bàyyi xel ci calendrier màggal gi lañ koy boole ñu xam ne bis bi moom ansaar ñoo ko moom bu boobaa yeneen événement yi duñ ko du amandoo ca loolu jàpp naa ne moo war a am ndax ansaar xam nañ seen taxawaay ak seen yitte ak seen pas-pas ñu doon ñoo xam ne tey kenn gënu leen a nekk ci biir yoon wi gën cee diggu ndax it sëñ bi lim bëggoon ñu mel ni ansaar ñoo ko ci gën a mën a jàppale lim bëggoon wooteem bi tasaaroo ci àdduna ñu mel ni ansaar taxawaay war nañ leen jàppale ba taxawaay biñ bëgg a taxaw ñu man ko ndax mooy tax message su sëriñ bi jàll te message su sëriñ bi njariñ la ndax bu ñu wax wax nañ ko léegi bu ñu wax universalité mooy univers bépp war nañ cee mën a jot war nañ cee mën a jariñ ci loolu buñ ko yemalee ci suñ biir loolu du mën a sotti kon day mel ne ay bunt la yoo xam ne ndawi sëriñ bi la ñuy doon yoo xam ne kon lépp luñ bëgg a def lu ñuy def day mel ne murit yëpp lañ koy defal kon murit yëpp war a taxaw ci seen ginnaaw kon loolu ñi ngi leen ci wan suñu ànd ne incha allahu rawdu rayahin bi nga xam ne mooy daayira bi nga bi sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ay activité scientifique ak culturelle ci màggal gi mi ngi ànd ak yéen ci liggéey bi di ñaan lépp loo xam ne yéen a ngi koy xalaat di ko nas ñu ñu yëg ko ànd ci ak yéen ndax xam nañ taxawaay bi ngeen taxaw ak yitte ji ngeen am ndax waxtaan wii ma li ma fi fekkee tuuti j'ai assisté un peu une partie de votre intervention votre exposé qui est très profond, tout le monde devait écouter ce que vous avez dit. Vous avez bien compris la profondeur de la pensée de Charles Bab. J'ai retenu ce que vous avez dit. Pour s'engager dans le monde de la haqiqa, il faut être prêt au niveau de la charia. Donc ça, c'est une équation, équation que beaucoup ne saisissent pas. c'est très intéressant kon moom yu mel nii doonul ne ñoom rek ñoo ko war a waxtaan seen biir mais murit yi yëpp dañ koo war a dégg kon bëgguma guddal ndax guddi na ba noppi waaye liñ ci yéene woon kon ci turu sëñ Ahmad Badawi euh, ñi ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan nag jotaay yu mel nii ñu di ko ànd ñu mën cee taxaw taxawaay bu mat sëkk euh, ndax jàpp nañ ne lii tey tuubaa ñëpp waroon nañ ko yëg waaye xam nañ ne jàmpaay na ndax waxtaan naa jeg sañ bay mu xamal ma jàmpaay bi waaye ma ne ko nag jàpp na am rek lu mu jàmp jamp na am ndekoon buñ ko teeloon a yëg buñ ci communiqué ñi ci complexe bi rek buñ ñëwee mhm. yaakaar naa ne fii kon saal bi na fees waxuma la ak ñeneen ñi nga xam ne. mos naa am ñaar yoon ñetti yoon ci guddi màggal gi. waaw day saa jë jënd waaw Amadou Badiou moom waaw moom sax daf maa wax mhm. bi ma ko ko waxee. ndax barki biig biig ci laa ko ko wax mu ne ma loolu moom na ngeen ci taxaw ndax ñoom dañoo war a jàppalante ak ñoom mhm. ndax it moom mbirum xam-xam lañ ko dénk te xam-xam du lu ñuy tëj mhm. kàggug sëriñ bi ñun dañoo bëgg mu tasaaroo ci àdduna dañoo bëgg ñëpp jot ci ci jàpp nañ ne mën ngeen cee am taxawaay kon nag ñi ngi woo taalibe yi di leen ñaan ñu déglu ansaar projet yi ansaar di teg ñu xam ne projet la yuy jariñ yoon wi yuy jariñ lislaam ci boppam yoo xam ne day jariñ àdduna bi kon ñu ngi ñaan lépp loo xam ne yéen a ngi koy nas suñu borom def ci tawfiq def ci ay ndam bam àgg foo xam ne dina kawe njort kon ñu ngi jégglu bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam cheikh ahmadou bamba sëriñ tuuba xaadim rasul jërëjëf rabbi samawati wal ardi ma baynahuma rahman rahim dénk na lépp xaadimul mustapha nee na laa ilaha illallah muhammadu asalaw mawlaahu dénk na lépp kon daayira ansaar asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu non tutti non possono essere in Sardina. In Sardina è una grade che tutti non possono essere in Sardina. Allora noi, per noi è una felicità una musulmana, però non puoi andare entrare nella casa di Ansardin. Con lavorare Ansardin elaborare par Allah subhanahu wa taala cole cole che Serigne Touba Khadim Rasoul sia raccomandato non tutti lo dico ancora non tutti non possono essere ansardini allora dico solo alhamdulillahi rabbil alamin kassira la kulli al Io ringrazio Allah subhanahu wa ta'ala e tutti siamo noi insieme per lavorare per Khadim al-Mustafa. 2 euro, 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50, 100 non è niente davanti a Khadim Rasul. Tutto quello che vuole lui è lavorare ah, per domani, perché domani è un appunto dobbiamo tutti ricordarsi che arriverà. E questo giorno, se non, se non per Ansar una parte di quello che abbiamo fatto nella vita è persa. Quindi per noi è, una, è un una grande felicità. Magari alcuni pensano che Ansar sono noi bianchi. no an sarɗitono anke noyi pelnere anke qui devono essere ansardini non so se mi avete capito perché sono zone della, del, del Senegal appunto che non, non, non ni neanche musulmani né, né non, non, non, non sono niente lo so perché l'ho detto non hanno fiducia quindi essere nell'ansardin Se loro uno di loro sono Ansaruddin, vuol dire che Ansar è universale, è l'universalità. Ah. Quindi ogni parte della vita, ogni parte del mondo, qualunque, mm, qualunque persona che possa andare da lì o se può mandare per, per lavorare per Ansaruddin deve farlo. Perché so perché l'ho detto, sono appena arrivato oggi a Tuba oji el forum enon pensava neanche essere qua oggi quindi quando ho parlato così è un'altra perché so dove, ho, dove sono passata per venire fino qua non sono io dove Sintuba mi ha mandato per finirmi fino qua quindi per me è una, è una grande felicità di essere qua convoy e prego anche al, a, tutti di pregare anche per tutti, per tutto il mondo di essere ansardini. Ansardini non è facile, è una grande, è una grande grade, lo so perché detto. Ah? Quindi alhamdulillah rabbil alamin che sarà la colliera che siamo qua oggi. Ansardini, grazie. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillaahi rahmaani rahiimi mbokki taalibi mbokki jullit mbokki andi jam maa ngi leen di nuyu nuyu lu mu gën a kaawe nuyu moom lu mu gën a sel mooy nuyu lislaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu barke seen Tuuba li ma ci bëgg ci aju njëre ci eh, Serigne Fallou Bambilor dafa am tut tànke mu tuddee Fallou Fallou baayam Fallou doom pour loolu wàllu soñe ndax ci biir ansaar nekk moom moom amul complexe am na fi ñu bari dañ ñaan complexe surtout suñu samay mbokki moodu moodu yi wala sénégalais nekk fii du ma jël sama tut tànki di ma ko jox daara wala wala dama ko yóbbu ci école franco arabe xam nga surtout complex loolu moom dafa jël doom bi jóge Mbambilor joxo Serigne Bass xel fii lu ko indi ci Touba joxo ko xam nga loolu moom c'est-à-dire ñun Serigne Touba wax na ci injil ak ci hawut ci sindidi booy jàng sindidi foofu mooy njëkke wax ci ñoom nasaraani ak ñoom juif waaye bay dem ci téere yi mu xaaju naa fi fi ma daay saaf ku tedd gi wax ne nee na ya xaalal baari ya xaalal baari wajuli baari bari saxaay woo na géej woo na jéeri seen tuba fu ne seen tuba am na ku ne li may ci soññ loolu ginnaaw ma ngi soññ sama bopp dañuy wax seen tuba universel waaye seen tuba universel nañ koy mën a wone mooy ci intégration ci biir intégration nga xam Sëriñ Tuuba du yëfi sénégalais moom moom àdduna yépp Sëriñ Tuuba moo indi indépendance la vera indépendance Sëriñ Tuuba moo ko indi ci indépendance lan lan isbullah wala isbu sheytaani won nañu yoon bi almuridullah waxu tarixa mooy ku dem ci yàlla ndax moom dafa tànn ci tànn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tànn ay mujahidun seen tawa mu tànn ci ay saadixiin ci biir itali ah fu ñu mën a doon ndax man su fekkee yàlla keese keese keese keese keese keese du ma ñëw Sénégal ndax yàlla am na itali est-ce que yow may dégg bu baax li ma mën a xam yaa man ci yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg ay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Sëñ Tuubaa yaa ko mën a xàmme chaque jour li may soññi dañu dañu war a xam lu ñu yore booy xam li nga yoore dangay mën a xam li ngay doon waaye mënu xam li nga doon te xamu li nga yoore magal gi lañuy ñuy jëm te ansaar mi ngi ci wàccaay forum ansaar loo ko taxaw a jóg pour ma jox la valeur bi jamono yonent bi sallallahu salaam mu àndal ak mu jaayiroon bu mu ñëw fii ci àdduna makka am na madina am na seen tubaab bu mu ñëw dara fi nekkul fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu gàddaay makka dem madina dem yi xatrib fekk ansaari foofu dafa àndal ak mu jaayiroon ku tedd gi radiyallahu anhu moom keese moo dem moom keese mooy retourné <coughs> ansaari dañoo jeyante seen biir dama am ñaari kër mu wax ak mbokku mujénoon ndax mu mujénoon dafay bàyyi bàyyi seen soxna bàyyi seen lépp topp ci yonent bi sallallahu alayhi wa man na am na ñaari soxna xoolal ci sama ñaari soxna ku la neexee ma fase ko benn nga jël ko ma ko benn keneen mu ñu man am na ñaari kër xoolal sama ñaari kër lu la neexee nga jël ci benn yi ci benn wax ma ma jox la ni de xool yow ci mujayrun nga àndal la yonent yi lu tax mu wax loolu ñun ansaar solo ñu yéen jaay seen kër yéen jox ñu seen kër solo ñu yéen jox seen soxna xamu la ñuy soxlaam nañoo bokk Cheikhouna Cheikh Amadou Bamba mooy xadim rasul mooy xadim Moustapha mooy Serigne Touba loolu la ñuy ñun dañee so lam àndal ak yéen liggéey àndal yéen ndax xidmaatul xa xidmaatul xadim mooy du liggéey bu ngeen xaalis da ngay liggéey ngir sëriñ Tuuba ngir jëmmi ko tedd gi te booy liggéey ngir jëmmi ko tedd da ngay liggéey fii da ngay liggéey fële Sénégal mi ngi feeñ pétrole mi ngi feeñ gaz mi ngi feeñ zircon matière bu nekk am na fi waaye matière la mu gën a nag moom da lay jëriñ fii ci àdduna da lay ci àllaaxira mooy Serigne Touba mooy xadim rasul mooy xadim Mustafa nañu xam li ñuy yor te li ñuy yor du lu ndaw nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax ñun dañoo jaayant bàyyi suñu lépp ndax li ma indi fii indi ma xaalis ak bëgg Serigne Touba mi ma ànd ak yow bëgg Serigne Touba dong yahalal bari yahalal bari ujuli bari bari saxaay wona geji wona jeeri woo cosaanu woo askan du dem demba mu ma sàmm du weex du ñuul bëgg sëriñ Tuuba da a woone loo koy woone bëgg sëriñ Tuuba bëgg lu baax def lu baax te yeneen lu baax te yàlla tax dangay ngay war a woone seen seen bi lu tax ñun dañu am jafe-jafe lu taax ñun dañu am jafe-jafe du du sëriñ bi de du sëriñ bi de ñàkk xam sëriñ Tuuba moom mooy suñu jafe-jafe ndax adduna war ñu koy xam am na fii ay mbokk tali ba ñuy waxtaane xam nañu waxtaane ci Gandhi ki kii président ki kii Mandela sëriñ Tuuba loolu Sëriñ Tuuba loo mën a damay wax ñoom yow ama nga wax Gandhi ma dem wala Masamba damay gëstu ci Sëriñ Tuuba dama ci Masaalikul Jinaan tasawdu sixaar tasawdu subaan naaj wa yéen tere yéen sëñ bi mi ngi fii sëñ bi dafa wér fukki fan ab juróom ñett ci safar mooy magal gi sant na suñu borom ci ginaar ba gilim wax ma sant ma sama jëmm ji wala wala wala kii sant ñu suñu borom amul kenn man dama doylu ci sëriñ bi sama umra sama aji sama lekk fii Touba man saa Touba la dama doylu ci sëriñ bi de dama bëgg nañu war a góor góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax ah jàppale sëriñ Mountakha ci côté bu ne dimbale sëriñ Mountakha ci côté bu ne am na ñu bari dañuy dëkk si ci dëkk bu sell fii waaye xamuñu dëkk bi seen jikko àll rek la jël rek di ko bëgg a doxal fii noonu yow yaay sonn ñun sonn ñu magi murid yi nekk fii ñoom xam nañu sëriñ bi xam nañ lu taxaw jokk si sëriñ bi sëriñ Murtada radiyallahu anhu bu am kenn di fi tuub jar na ma dem foofu di koy seti si loolu moom damaa ci soññi borom xam-xam boroom am-am borom tuuba lépp ku mën a doon rek nañ ci war a jàppale ndax jël jël jël kii kii ñëw ci diine parce que converti xam nga dañuy wax convertitu hmm? waaye ritornati al islam dañoo delluwaat ci diine yi loolu mooy wax bu jub dañoo delluwaat ci diine yi dañuy sor lam ah ku ñu ci jàppale ku ñu ci xamal sëriñ bi rek parce que dimbale yow nu nu ñuy dimbale mooy xamal sëriñ bi rek boo xamal sëriñ bi rek wax dëgg yàlla moom moom moom moom jafe-jafe amul de maa ngi jégalu bu baax ci kàddu yi euh, damay fàttalikoo ñun daayira ansaar ñetti fan yi màggal gi set safar 18 safar ak 19 safar dañuy def suñu exposition buntu kër Sëñ Abdou Lahat suñu mbokki soxna si mi ngi mi ngi fii Mame Diarra mooy jiitu coordinateur soxna yi ñi ñu ci diine yi ndeysaan euh, Mame Diarra Gueye mi ngi fi ak yu bari mi ngi ñëw forum nii yéemuñu en ça du question Italie dañu koy yaatal ndax waa waa Brésil waa Argentine waa Madagascar forum international lañu fi def ñun dañuy xool kuy ñëw nañ koy jàppale lu koy dimbale xamal ko farata ak sunna yi ci yoonu Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba mooy xadimu rasul mooy xadimu Mustafa mooy Serigne Touba ci loolu la mën a wax di ñan ñaan yàlla seen muntaxaa yàlla fi yàgg te wér ñaan xalifa Baye Fall yàlla fi yàgg te wér waaye ñaan ñu ñépp yàlla yàlla boole ñu deful ñu te nangu ñu ko de barakati Cheikhona Cheikh Ahmadou Bamba jërë ngeen jëf eh, come dicevo ehm, eh, Serigne Murtada eh, radiallahu taala anhu ehm, all'epoca faceva delle, delle visite Eh, in eh, particolarmente in Italia eh, la sua presenza aveva creato diciamo una, importante era un, e, un, evento importante che alla fine ha eh, so dafa ñëw. ma nekk hmm? nii toog mooy kan. toog nii moom. ah ok. Eh, come dicevo ehm, le visite di, di Sheikh Muttada Ambaki aveva creato diciamo, um, una, una, una, certa atmosfera di curiosità verso gli italiani che eh, alla fine abbiamo visto che tanti eh, hanno cercato di, eh, capire la religione musulmana e, e tanti anche mm, hanno integrato la religione E, però eh, c'era un problema perché dopo essere mm, convertito avevano un problema mm, sull'accoglienza, ehm, di essere seguiti e l'orientamento che alla fine eh, si ritrovavano da soli e facilmente potevano ehm, trascurare la religione. era un problema e questa idea che ha ispirato Serin Bai Genbai e all'Agi di, di, detto poco fa lui, a creare la Daria Ansar per poter, rimediare a, questo problema. Quindi attraverso dibattiti, incontri e magal e sono riusciti piano piano a radunare diciamo, i, i, convertiti verso un, un, ambiente molto più sicuro e molto più chiaro nella, nuova scelta. Eh, a questo effetto eh, abbiamo visto che mm, eh, la Daira aveva cominciato a fare i suoi progressi e piano piano si fatto un nome e quindi abbiamo visto che la Daira dopo essere nato praticamente aveva un'altra, uh, un'altra strada diversa delle, delle Daire che alla fine si limitavano a, mm, creare dei incontri chiedendo eh, delle addia, organizzando e, e eventi religiosi, invece la Ansar era un'altra realtà e eh, una realtà possiamo dire che un po' diverso eh, altri perché eh, era composto per lo più di membri italiani e senegalesi e avevano anche un'altra forma di, di, Quindi in, poche parole eh, su questo effetto la Daira Ansar è arrivato a a ehm, pensare di più a lavorare e, e mh, mm, allargare le sue azioni attraverso grandi conferenze e possiamo citare anche e, tre forum dal e 22. E forum praticamente ehm, allora, cercavano di, di fare eh, diciamo, il riassunto degli ultimi 30 anni eh, della diaspora Murid sulle strategie, sulle soluzioni e le proposte di soluzione eh, e questi erano guidati dall'intelligenza muridia che potevamo citare il professor Mohamed Kalanjai, Abdullahi Fahmi e tanti altri, Musa Giancala, tanti altri che ripresentano delle figure eh, molto importanti mm, della, de, del muridismo. E quindi eh, ritornando su questo punto ehm, possiamo ehm, parlare la realizzazioni di Ansar, praticamente come l'abbiamo de definito, che l'abbiamo già detto. Allora, l'altro punto sono gli obiettivi eh, della Daira. Lì praticamente eh, metteremo eh, davanti il progetto Daira che è un progetto molto ambizioso che praticamente abbiamo visto che durante, ehm, eh, durante le attività e poi la realtà che esiste mm, tra i membri italiani o mh, mm, di altre nazionalità un problema perché una debolezza della Daira è e eh, la barriera ling è la barriera linguistica e questo eh, fa sì che i, ritornati all'Islam avevano dei problemi per capire eh, esattamente eh, gli insegnamenti, per, capire la realtà e quindi eh, facevano fatica perché se vai diciamo in un evento morire che parlano o di Hadith o dei scritti di Sheikh Ahmadou Bamba o altre cose, lo dicono in arabo o in wolofo. Allora l'italiano che viene, che, non lo capisce, avrà un grande problema. E quindi abbiamo pensato eh, dare l'opportunità a una sorella o un fratello eh, italiano che lo desidera di andare a studiare il Corano e l'Islam in un altro paese tipo in Senegal o un paese che praticamente ehm, dove si può studiare il sufismo che fa sì che se quello lì ritorna potrà direttamente eh, dare il messaggio più chiaro perché io nato in Senegal magari eh, se vado a spiegare certe cose a un italiano avrò magari qualche problemi a certi livelli, però l'italiano nato e che socioculturalmente eh, che capisce l'altro può dare un messaggio molto più chiaro, molto più pulito che, la mia persona e quindi questo è l'obiettivo di ANSAR. Non è ancora realizzato per fare questo e per arrivare a realizzare di dare un contributo di 2 euro ogni mese eh, quindi mm, strada facendo potremo arrivare anche a costruire una, una, o una struttura eh, a tuba che permetterà che potrebbe permettere agli altri di, di, formarsi. In poche parole sono questi i punti che abbiamo sviluppato qua, magari per non trattenervi tanto io mi fermerei qua almeno. di nuyu nag waa diaspora bi yëpp macha allah di nuyu murit saalix yëpp di nuyu Baay Faal ñaanal sëñ Muntaxa al Bachir yàlla na fi yàgg lool te wér te mu ànd ko ñun. di ñaanal xalif général des Baye Fall mu yàgg fi loolu te wér macha allah di nuyu di bu baax euh, suñu jëwriñ sëñ Baye Gueye Mbaye di ko jox wàccuwaayam ñu ànd liggéey bi ak sëñ Bëgg Fall sëñ Xaadim Joxaane macha allah ak euh, suñu mbokk murit yi sëñ Saliou euh, jiite ko fi ci Touba macha allah di nuyu sëñ Ibrahima sëñ Ismaïla sëñ Fallou ñu lumul rek yow lañuy jiital ah di nuyu mbokk soxnay ansaar yi. macha allah di ci jiital soxna jaara Guèye macha allah ànd ak borom këram sëriñ Baara ah di kontaan bu baax ci forum bi nga xamante ne forum international la ah, bi mooy première édition bi nag ñu ngi ñaan yàlla ñu fekk ko te tal ko te yàgg koo def macha allah ah, kilifa yu bari nag ah, teewoon fi. sëñ Cheikh mu sëñ Muntaxa teewoon fi ak yeneen kilifa di nuyu di ziar soxna maam Isa Mbàkke ak lu ko fi jàmbaari lislaam bi nga xamante ni teewee na bis fi ànd ak uh, indaale kafe goo xam ne moo ko servir fii ah daayira ansaar nag di daayira boo xam ne daayira jaayante la ah, li ci ëpp sax mbokk taalibe yi tënk nañ ko kon boog dañuy dañuy sof ci lool rek macha allah suñu priorité nag bi nga xamante ne moo ci ëpp solo muy projet bi nga xamante ne daayira Ansaar am na yéene euh, def ko ànd ko mbokk taalibe yi euh, ñu gaaral ko nag euh, sëñ Muntaxa al Bachir mu boole ñoo isbu tarxiya yi macha allah ñu nar a ànd liggéey bi nar bokk liggéey bi ah, projet bi nag ñu tënk ko nag ci juróomi fànn nga xam ne suñu ne mooy euh, defar institut islamique boo xam ne mboole booy tuub boo xam ne rek tuub nga rek euh, boo ñëwee fii ci Sénégal euh, da nga nañ la jàngal sa diine macha allah ah, jàngal sa diine bi nag ñu ngi ko tënk defee ko ci réew moo xam ne dañuy jàngale tasawuf Sénégal nag macha allah ah, ñu taamu ci nag fii ci ci Touba ah, ñu bëgg a former ñoo xamante ne. Eh, dañuy traduire ci langue yépp nag képp koo xam ne way tuub nga rek dugg ci diine boo ñëwee danañ la omat teg la ci yoon ah, defal la bourse boo xam ne tamit di nga fi mën a nekk ah, ba nga xam ne doo am benn jafe-jafe fii ba ba ngay dem ah, projet yi nag macha allah xalaat yu bari na idée yi tamit euh, macha allah fasu na dañuy ñaan yàlla fekk ko te eh, tal ko te rafetu fekkin macha allah xam naa sëñ Jalla dina gën a leeralaat eh, projet bi ci olof ko defee ñu bokk ko bokk taalibe yi rek maa ngi nuyuwaat ñëpp nag di ziaraat ñëpp ah di sant ñëpp nag di rafetlu bu baax ah, di leen ziar ci 18 safar bi yàlla nañ ko fekk te tal ko te rafetu fekkin ñi ngi ex ñi ngi def nag benn exposition boo xam ne ñoo ngi koy def ci buntu kër sëriñ Abdou Lahad soxnaam Issa jox ñu espace boobu at yëpp ñu ko fay àndandoo di defandoo ak mbokk taalibe yi ak mboolem waytu boo xam ne rek dugg nga ci diine macha allah. ñi préparaat bu màggal gi passé ñu amaat beneen wàccaay boo xam ne ñu ngi koy amalaat ah, ca Italie muy eh, nasaraan yi nga xamante ne ñoo tuub ñooy sant sëñ Touba ca Italie macha allah eh, ñu def ñuy bëgg a def benn semaine boo xam ne semaine culturelle Cheikh Ahmadou eh, Bamba lay doon di commencé di 11 bala bala une semaine daal lay duré bala 28 incha allah yàlla nañu fekk yàlla nañ ko fekkee te tal ko rafetu fekkin ñoo ngi ci woon nag ñëpp. di nuyu kilifa diine yi nga xamante ne macha allah ñoo bokk liggéey bi ànd ak liggéey bi di ci jiital sëñ Mamor Mbacke mu sëriñ Mourtala macha allah ah di nuyuwaat di ziar bu baax sëriñ Abdou Samad mi nga xamante ne daf ñoo tàllal loxo bokk ñun liggéey bi ànd ak ñun liggéey bi bokk ci ansaar macha allah ah. di nuyuwaat bu baax sëñ naa Baara bi nga xamante ne boobu ba léegi moom waa ansaar la ah, bu ñu limee daal euh, euh, dañuy juum ñoo ngi santaat ñëpp di gërëmaan ñëpp. xam naa sëñ Yàlla dina ñëwaat indi ci yeneen leeral yi gën a leer ñoo ngi jégalu kàddu yi bu baax kon boog may tàmbale ci sëñ bi yem ci sëñ bi rek minal xaddim bi ilal xaddim bi dana mën a gën a jëm kanam di nuyu itam soxna maam Isa Mbàkke mi mooy di bàyyi baalu sëñ Tuubaa ci liggéey sëriñ Tuubaa yi te ñu koy dàkkantalee ci borom kafe gi di nuyu mbokki taalibe yi fi nekk yëpp nuyu sëriñ Saliou mi nga xam ni mooy dañuy wax magum murit waaye moom itam magum taalibe lay ci ñi nga xam ni yàlla dogal na ñëw ci yoon wi di nuyu sëñ Ismaïla ñoom ak sëriñ Fàllu ñoom mbaam bi loolu maa ngi naa léegi sax démb rek jaar naa fa maa demoon ci ñaay bi ci guddi laay ñëw ak du it sëñ Fàllu mooy itam hmm. ñoom ñooy français Ibrahima xalilullah yonent yàlla xaritu yàlla yonent yàlla Isa ibnu Maryam kon ñooñu ñëpp buñ leen nuyoo ba noppi ñu nekk fa nag ci jafe-jafe yoo xam ni lii ñëw tey ba ñoom ñii yàlla dogal Serigne Touba indi leen ci yoonam bi bu ñu xalaatee tey waxtu woowa daañu war a mën a góorgóorlu ci sëriñ Touba njabootu Serigne Touba gi bu baax ndax am na ñu fa fekkan am na ñu ñu fa nekkalooloon te xam nañ ci lu bari. ndax du ñu toog te mu bañ bi war demee 86 ba léegi mosuñu fa am at di ñibbisi dama leen daa wax ne leen ku liira gën laa néewi liir li fi ne kenn mënu ko fee jëlee ba mu jeex loolu dama ko daan wax toujours témoignage yi ci 91 bi sëñ Mourtalaam sëñ Tuubaa ñëwee tari moom nag moo ñu jiitu ndax wax nañ ni ay 60 nangam 65 wala. 66 ñëwoon na Italie ñëwoon na Rome waaye ñëw bi nga xay chaque année mu ñëw fa moom 1991 la ci la fa ñëw ba mu fa ñëwee nag ñun ñi yàlla dogal tey comme nii mu def ñu wooñu fii bañ ko siyaaree dañ ñoo woo ñuy waxtaan mu xam na lépp du gaan itam ndax moo ñu fa jëkk te ñooñu moom itam waaye bu ñu joxee ndigal duñ mën a bañ a wax ba ñu laajee nag bañ wax li ñu xam ginnaaw yàlla ci la mbir këri Sëñ Tuubaa yi bàyyeekoo ñu ko ñu ñoo ngi fi am lu nekk ñoo ngi fi def lu nekk waaye loo ñu digal wax ñu ko dee ñu ko mante dee ñu ko def ndax Sëñ Tuubaa lañ fi nekkal bañ fa jógee Sëñ Tuubaa lañ ne bi ñu fi ñëw Sëñ Tuubaa ñu fi indi ndax booba saako yi perméable ñu li ñu daan def mbari moom lañ daan rokkas ndax xam nga liiré bi xaalis bi daa bari dañ ko rokkas ba mu fees ñu benn teg fee ñu ko xaalis baa ngi nii boobu ma daa mel ni ay naaf man ay naaf sax laa ko tuddee woon ak i tar mboob boobu bari waaye bañ ko leeralee noonu keroog la digal kër Serigne Touba kër ga nag ku nekk ku ne Italie yàgg ngaa dégg la ca xewoon ndax Bérésia la tudd te Serigne Touba lu mu tudd mooy am wet gu ne jaar nañ fa lu ne dugg nañ ci kenn ku ne fu ñu dëkk lañ bëgg wutuñu kër Serigne Touba kër gu dëkk lu ne wax nañ ko. amee leneen lu ñu bëgg a ci biir rek moom li fi ne bari Euh, kii rek laa bëgg waxale ndax moom moom lañ jëkk a xam ci yàlla dogal mu dugg ci yoon wii tax ñu kii nag bi ñu ànd ci moom wax dëgg fu ñu doon doon ñoo ànd ci oto bi dëkk bu ñu dem comme nii ma wax nii moom da doon jaay boobu lat ko lañ joxee sëñ Moudou Moustapha la ci defoon ak Serigne Fallou Mbacke daal di nii daal bu bu ci jar li ma ci daan bénéfice moom dama koy def ci kër Sëñ moom mi loolu waxoon wax dëgg yàlla nii la def ñuy ànd guddi di ànd bëccëg ñëw naa fii ñu wax ma ba sëñ seexum sëñ Saliou mi sax moom danaan jàngale xam nga café gi sëñ bi daan lafin moo ko daan defar di ko di ko yóbbu taksaan sëñ Saliou dem naa mu wooloom ba ma ñëw mu am lu ma laaj ci ma ma ni ko kii de nii ma ko gisee ab taalibe la ndax xam nga kilifa léeg-léeg comme ñoom du demu ñuy kii ñu tey déggandéem rek il faut que ñu am lu ñu la laaj man leeral ko ci yëpp ni ko sëñ Saliou li ñu ko tuddee te ab taalibe la tey liggéey bi ñu liggéey sëñ ci la ànd lii moom mii def na ko dafa gën a takk laxasaayam ci liggéey bi soññe bi lépp